cirë ngeen jëf boromuk fital gu soqik fitalam di yëglu maanaam tir de sommation moom la général François Ndiaye def démb journal La Tribune moo ko bind xamal ñu ne président comité suivi fonds force covid-19 di général François Ndiaye ab janoo la xëy démb ak taskatu xabaar yi ngir doon bilan seenub liggéey taxawu gi ñu war taxawu réew meeg waa réew mi ci jamonoy coronavirus gi nu mu demee lan lañ ci def ak lan lañu ci deful journal bi dañu la indiwaalee ay tonto ki leeral jëm ci coowal ndàmpaay li la ñuy jox membre yi ci wax wax nañu lu dul dëgg na voilà la def kenn fayu leen kenn dàmpu leen ci la Sénégal mun nañu fa duma nangu comité bi ñu ma dénk di doon géopolitique Le Quotidien nañu njiital comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye taxaw na jon boole kook fa xas mbooleem tuuma yi ñu ko gàlloon moo ki gaayam nee na fii ci réew mi dafa ay nit yoo xam ne dañoo mel na ñu gëlëm ba tax ñu dëkk ay sos wax na it ne aide alimentaire gi ñuy baaxee askan wi du mën a daj fépp te it du mën dajal ñëpp les économies fay yu Mansour Faye yi ci séddaleem dund gi général François Ndiaye génne na leen démb général nee na bu weesoo ceeb bi seetlu nañu ne kit alimentaire maire yi bari na yu ca manqué nee it fi ñu bind ñu ñu war a dimbali mu di registre ba nañu ko xoolaat ndax dese naa wér lisi ko nañu dem na bay xamleet ne bu ñu yaakaarloo askan wi lu munut a nekk ne ndimbal du ñëpp ci mën a am ci enquête dina kay ba tey kàddu général Ndiaye mu defa leeral ne li ñu leen dénk mission la boo xam ne dañu koy wéyal dem ca ba jeex mbindeef mënu leen cee fàbbi l'observateur nañu général François Ndiaye wax na démb lu am solo ne nee na juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent yi jël jënd ci dund jagleel ko ñi seen bët xonq ci jamonoy mbas mi ndimbal loolee du daj ñëpp du daj fépp ndax matewu ko daanu dajul suuf Diouf ki ñëpp bàkkee bay Fallou Macky Sall di Moustapha Diop ubbil journal ñi génn di wax ak jug di ŋàññi doxalinu Macky Sall ci gestion Covid 19 bi ñooñee la maire bu Louga bi xëy di defanteel nee na dogal yi président Macky Sall jël yëpp ak taxawaayam bi mu taxawee taxawoo ko askan wi ci jamonoy mbas mi lépp gong rek lépp a jaar ci yoon président wan na ñëpp ne aw askanam ak intérêt général moo ko ñor ci la yorey réew mi yamu ca ne ci xët mu njëkkulise ko ma nga fay sàkk moom Moustapha ci ñëpp ñu ànd gunge président Macky Sall nekk ci wetam jàppale ko ngir mu am ndam ci kaw coronavirus bi njatt réew mi mu ne ki baax ci réew rawatina fi réew mi toll moo di Macky Sall bu doon borom kër la ñu ne nit mënu ko ci njabootam li koy wane moo di bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi amul benn dogal ba bu mu fi jël te baaxul baa ba tax mu ne képp ku di ministre baa ngay militant APR baa bokk nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar na ñëpp booloo jàppale président de la république tubayul ko taxawoo ko ci kaw ngor gore ak dëgg gu mat sëkk ci noone journal L'Observateur mi ngi ñuy xamal moom Macky Sall kase na code du bi ci réew mi ak loi bees bu ñu promulgué mu jëm ci wàllu emploi loi baak na mu tëdde ak ati yi yi ñu yóbbu ba ci juróom benn fukk ak juróom journal Groupe Futurs Médias bi mi ngi ñu koy leeralal leneen lu leer ba mel ne leeral mi ngi leere ci Source ubbi leen yéenekaay bi ministre de la pêche ak économie maritime di Alioune moo waxoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ne moom bi ñu ko takkalee ndombal tànk ministre de la pêche ak léegi amul benn licence de pêche bu mu signé yéenekaay bi nañu monsieur ministre Alioune Ndoye ngi foowee 173 ak numéro 174 di conseil en communication bu ministre Alioune di leeralal waa Source A licence de pêche yooyee ñu wax du ay licence de pêche yu yees ministre bi da koo renouveler yeesal ko rek waaye dara yeesu ci lu yees leneen ci mbiri Luc Nicolaï ma ca kaso bu kees l'observateur mi bindoo ne Luc Nicolaï dafa tàmbalee grève de la faim ca kaso ba te kilifa yore kaso réew mi génnoon weddi xibaar boobe yéenekaay bi xëy na ca yeneen xibaar sax ñu évacuer ko woon ci hôpital sax Sakhir Ndiéguène bu Kees